mën nañoo trompe ku ne waaye nag buñ la trompe wa ida raaytahum tuujibuka ajsaamuhum wa in yaqulu tasmac li qawlihim ka annahum xushubun musannada yaxsabuuna kulla sayxatin calayhim hum alcaduwu faxdarhum qaatalahum allahu annaa yufakuun yàlla ne ko wa ida raaytahum soo leen gisee tuajibuka dana la yéem sax ajsaamuhum seen jëmm ya waaw ndax tabaarkalla nañu soloog seen melokaan ak personnalité ba ñuy incarné ci seeni ci seen bopp te duñu dara duñu tus yàlla ne wa in yaqulu bu ñu waxee sax tasma li qawlihim da nga dégg seen wax ba yéemu ci ndax ñu éloquent lañuy ñuy nekk waaw buñ law bu ñu waxee ak yow rek jibar la ci seeni làmmiñ ndax seen kalaama yu jekk waaye yàlla nag nee na nit ñu vidd lanu ka annahum xushubum musannada ay gattax yu fënëx lanu ay dénk yu fënëx lanu jëmm jaa fa nekk rek waaye biir ba dara nekku fa te itam ay buqat lanu ndax yaxsabuuna kulla sayxatin alayhim coow lu jóg ñu foog ne ci seen kow la jëm waaw yàlla nag ne yonent bi humul aduwu ñooy noon yi nag faxdaruhum moytandil moytandiku leen ba léegi looloo fi am ñi noonu lislaam bi di ko yàq ñu ngi ci biir jullit ñi waaw di boroomi daraja di mbubboo ne jullit lañu te ñoo gën a bañ lislaam bi ñoo gën a mën a gàllankoor lislaam bi lu yàqu ci lislaam bi ñooma waaw bu ñu waxee nga daanu suñu génnee nga yéemu ci seeni jëm waaye nag yàlla nee na ñooñu daal humul aduwu ñooy noon yi yonent bi faxdarhum moytandiku leen bu baax yàlla ñaanal na leen ak toskare ne qaatalahum allahu yàlla na nu toskare yàlla na nu dee anna yu fakkoon ak fu ñu mën di jëm ak seeni pexe yàlla na nu toskare te dee moo tax ab naafiq dund bu toskare lay dund waaw ñu ni bi nga xamante ni saar yu wàcc na jox dëgg Zayd ibnu wax nanu ne am na ñu ñëw ci Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul ne ko demal ci yonent bi nga wax ko mu jéggalul la yàlla ndax wax bi kat yaa ko wax nee na ña ko doon conseiller ba ñu waxee ba pare nee na dëngalu na dëngalu ko rëy waaw dëngalu ko rëy la dëngal loosam wa daldi koy wañ daal ni wëlbét ne ah man maa ñàkk fayda di dem ci yonent bi sallallahu alayhi naan ko nangam ak nangam ak nangam man am naa doy di googule kon nga gis ni kii moom tegul woon yonent bi fenn ngëm gi daf ko làqatoo rek loolu itam alxuraan bàyyiwu ko feeñal na ko yàlla ne wa ida qiila lahum taalaw yastaghfir lakum rasulullahi lawaw ru'usahum wa ra'aytahum yasudduuna wa hum mustakbiruun sawaun alayhim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfir allahu lahum inna allaha la yahdi al qawma al fasiqin yàlla ne ñoom sax de na nafiq yooyu waaw te namm ci kenn ku dul Ablaay ibnu Ubay ibnu Salul ak ñi ànd ak moom yàlla ne na boo leen waxee sax bu leen waxee sax ne leen taalaw leen yastaghfir lakum rasulullahi yonent bi jéggalul leen seen bakkaar nee na la waw ruusahum nee na ñu wañ seen loos ak seen bopp ya wara ay tahum ngeen gis leen yasudduuna nee na ñuy dëddu yoonu dëgg waxumu sakbiroon te ñuy rëy rëylu rekk rëy rëylu rekk tax ñu dëggu ñu dëddu yoonu dëgg yàlla jéppi na leen jéppi goo xam ne nee na yonent bi nga jéggulul leen yàlla ak nga bañ leen a jéggalul yàlla ci yam ñii duma leen jég duma leen jéggal ba mukk xam nga ni ab naafiq yàlla bugg ko yàlla ne sawaun alayhim moo xam ñoom astaghfarta lahum jéggalul nga leen yàlla am lam tastaghfir lahum wala jéggalul leen yàlla lan yaxfir allahu lahum yàlla du leen jéggal ba mukk baatu lan day dàq ba abadan waaw yàlla ne lan yaxfir lahum man yàlla duma leen jéggal ba mukk ndax man yàlla duma gindi ay nit ñu nga xam ne kàccoor lañu di ay nafeq nee na ñoom nafeq yooyu am na lu ñu doon wax ñoo doon wax waa lamsaar di leen influencé ni leen mu muhajirun yi jóge màkka te moo di yonente bee ki saxaabaam yéena leen fuyloo ndax ñoo jóge màkka ñëw ngeen nangoo bokk ak ñoom seen alal dëkkal leen protéger leen yéene leen fuyloo waaye bu ngeen téye woon seen loxo ñu torox yàlla di leen wan nag ne ak toroxte ci loxo yàlla la nekk te da nga ci loxo yàlla la nekk ndax walillahi xadaa'inu samawati wal ard yàlla moom moom magasin asamaan yeeg yu suuf yi kon nag diwa may dundal bu tee loxoom ci man ma toskare bu loxoom ci man ma alko bu loxoom ci man ma torox kooku ku gëm yàlla du ko wax ku gëmadi yàlla rek ko koy wax yàllaa yor ñëpp moo tax yàlla di wax ci saar wi ne hum alladina yaquluuna laa tunfiqu ala man inda rasulillahi xata yanfaddu wa lillahi xazainu alsamawati wal ard walakin almunafiqina laa yafqahun yàlla ne hum alladina mooy ña nga xam ne naafeq ya nga xam ne yaquluuna ñu ngay wax naan laa tunfiqu bu leen dépenser seeni alal ay man inda rasulillahi ca saxaaba ya ànd ak yonent bi jóge mag bàyyi leen leen noonu rek xataa yam faddu ba ñu daw ñoom ñépp bàyyi fa yonent bi mu ne condam yàlla nag ne déedéet xanaa xamuñu ne man maa moom magasin asamaan yeeg yu suuf yi walillaahi aji sax la ñeel yàlla ba faw xadaa'inu samawaati wal ard koom-koomi asamaan yeeg yu suuf nit ku am maa la abal man yàlla xanaa xamuñu loolu walakin al munafiqina la yafqahun waaye nag nafiq yi amuñu tawxid te duñu dégg tawxid ba mukk xamuñu lan moo di tawxidul rububiya ak tawxidul uluhiya ba looloo taxoon sax bu ibnu ubay nu salul di wax naan yaquluuna ñu ngay wax naan la in rajacnaa ila al madinati suñu delloo madina la yuxrijanna al aadu minha al adal man mu baax mii de danaa fi génnee kàccoor bu bon bële te yonent bi la wax te moom mooy ku kàccoor yàlla nag ne walillahi alizzatu wali rasulihi yàlla nee na ak tedd nga man yàlla maa ko moom maak samp yonent kattan ak doole ak mën maa ko am maak samp yonent ku dul ku dul maak yonent bi amuloo dara moo tax boo bëggee am kattan am doole am mën-mën am sañ-sañ àndal ak yàlla ak yonentam bi walillahi walillahi alizzatu wa li rasulihi wa lil muminin yàlla nag ne walakin al munafiqina la yaalamuun waaye nag naafiq yi amuñu xam-xam boobule mu mel ni kon euh, ba léegi ngay gis ne moom borom bi subhanahu wa taala musul dañ di àddu ci xew-xew yi ci jamono bi yonent bi dee dund ba lu mësaana lënt mu wàccee ci ab leeral ko kon leeral na xew-xew bii moo tax am na benn xale bu ñuy wax abdullah ibnu abdillah abdullah moomu nafiq bu bon bi ñuy wax abdullah ibnu ubay moo ko jur ndax ñoom ñaar dañoo bokk tur waaw dafa tudd abdalaay am doom tuddee ko abdallah moo tax da nga naan abdallah abdullah ibnu abdallah ibnu ubay ibnu salul moom mi nga xamante ni bàyyam moo doon naafiq bi nga xamante ni dafa def yonent bi rival def ko wujj di wujjanteeg moom di noonam di ko xeex moom Abdullah ibnu moo ñëw ba ci yonent bi ndax moom Abdullah bi doom ji moo ñëw ba ci yonent bi ndax xale bu baax la woon ku gëmoon yàlla xam nga yàlla yuxrijul xayya minal mayit léeg-léeg yàlla fekk yéeféer bu bon mu génnee ci ko baax a baax baax moo tax buñ ne doom day niru wayjur ya déedéet waaw léeg-léeg nga gis wayjur bu baax doom ja bon lool sax waaw doom ja bon lool sax léeg-léeg nga gis itam doom ju baax wayjur wa bon lool yépp day am benn waay dafa génn ci bistoron bi naan ba màndi dégg nga di woote ne moom ab shérif la naan mbooloo mi teral leen ma ndax dogetu ki gën ci nit ñi laa yonent bi mooy sama maam kon ab shérif laa teral leen ma benn waay ju jàng ju am tawxiid te gëm yàlla te sell xool ko ak barab bi mu jóge ak melokaan wi mu nekkee ne ko ah, wax nga dëgg de say maam de baax nanu say baay de baax nanu waaye yow de baaxuloo ne ko maa ngi lay yëgal ne ndox ndox dafa sell mu ne ko xamuloo ne saw ak ndox ñoo bokk cosaan mu ne ko cosaanu saw ndox la woon waaye soppi tax ñépp bañ ko mu ne ko kon weddiwuñ ne sa cosaan sell na waaye soppiku gi nga soppeeku jóge ci sell googu jëm ci mbon moo tax ñun tey duñ la jox addiya mukk demal feneen nga laaj fa addiya waaye du fii mu ne ko in iftaxarta bi abain dawi nasabin faqad sadaqt walakin bi sama waladu ne ko boo puukarewoo ci ay baay yu baax ak i maam yu baax wax nga dëgg waaye nag ñoom de seen doom ji bon na seen doom ji de baaxul waaw ne ko nag cosaanu saw ah ndox mu sell la woon waaye soppi koo tax waaw ku mu laal nga raxasu loolu itam daf lay wan ne kon léeg-léeg yàlla génne ci ku baax mu génne ca ku bon léeg-léeg itam mu fekk ko bon mu génne ca ku baax loolu xikma yàlla la waaw sunnaam la mu mel ni abdullah mi itam bàyyi ji dafa bon dool dina feq bu rëy moom mu baax mbaax googu moo tax mu ñëw ba ci yonent bi ne ko waa Medina yépp xam nañ ne bu ñu doon laaj ban xale gën a mën a toppatoo ay waajuram ci teral ci teral ci teral see ay ay waajuram danoonu wax ne man maa dàq teral ñépp waajur te itam su ma reyee sama bàyyi danoonu xam ne ci ngëm laa ko reyee danoonu xam ne ci tawxiid bu wér laa ko reyee kon maa ngi lay ñaan yow sang bi nga jox ma ndigal ci ma rey sama baay ndax ku bon la yonent bi xool ko ndax xale bi daf ko waxaat ne ko bu ko keneen reyee te di jullit sama cofeel ci sama baay dana tax jullit boobu danaa ko rey te su ma ko reyee itam danaa dugg safara ndax ku rey jullit dugg safara mu ne ko te bëgguma dugg safara kon bàyyil man ma rey sama baay yonent bi ne ko lenn rek laa lay ñaan moo di nga may ñu ñu ànd ak sa ñu ànd ak sa baay ci njëkk ak teraanga ci masla ba keroog yàlla di ñu tàqale rek waaw ndax jullit la ci làmmiñ waaye nag yéeféer la ci zaahir ci baatin mu mel ni itam eh, yonent bi sallallahu alayhi wa tàggatoon na tarbiya woon na tarbiya woon na eh, ay saxaabaam ba seen ngëm ak seen pas-pas pas ak seenuk ràññee ak seenuk xàmmee àgg ci ñu xam lañuy def lan la waaw moom doom ji nee na ko su ma reyee jullit dugg safara kon nag may ma ma rey kii di sama baay yéeféer la waxuñu nag sa baay di jullit nga di jullit nga saaga ko wala nga dóor ko wala nga rey ko kooku moom def nga musiba boo xamante ni kenn xamul fan ngay jëm ak moom ëllëg waaw bu dee sa bu fekkee sa baay yéeféer la mën nga kon noonu mën nga ko noonu boo ko reyee sax dara nekku ci waaye sa baay di jullit ngay jullit nga teg ko kàddu bu ñaaw wala nga rey ko walla nga dóor ko kooku moom tedd dil sa wayjur la te ku tedd dil sa wayjur yàlla tedd dil la àdduna ak alaaxira mu mel ni kon mbokk yi mën na nu wax ne euh, histoire bàngoog di xazwatu banil mustaliq wala di xaswatul muraysi te ñaari histoire yooyu am ci te moo di takk bi ci yonent bi sallallahu alayhi takk soxna su màgg su di Juwayriya ak itam setal biñ ci setal Zayd ibnu Arqam ci wax ji nga xamante ni dégg na ko ci nafeq bu bon bi di Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul kon tabarakallahu mbokk yi kon dañuy yemale foofu waxtaan wi incha allah ba ajjuma ji di ñëw ak jàmm ñu continuer ak yéen siiratu nabi sallallahu alayhi wa mbokki jullit yi mbokki déglukat yi gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa julli ci ay ñoñam ak i saxaabaam dellu ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ci seen émission kalimatul xaq seen xarit Cheikh Ahmed Tijani Ndaw di leen ko defal ànd ak seen xarit Ousmane Bey mel nii ñu jóge ci xew-xew bu rëy mu di màggaluk Tuuba e, ñuy ndokkale jullit ñépp ci xew-xew bu rëy boobu ñaanitam ñaan itam ñi demoon yàlla indiwaat leen ci jàmm ak salaam mu mel ni tabaarakallahu mbokk yi ñu ngi woon ak yéen ci siira te fan yépp ñu ngi doon waxtaan ci xare yi nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xare na ko waxtaan wi ñu génn ñu ngi jóge ci xare bu ñuy wax Muraysi' defe naa ni xare yi bari nanu waaye fas yéene nañ ko topp ndànk-ndànk xare boobu nag di xazwatu Muraysi' xew-xew yu rëy def ci am ndax gis ngeen ne yonent bi sallallahu alayhi wa takk na ca jigéen ju baax ju ñuy wax Juwayriya te mu doon Barra Sidi Xaaji Maalik Si mu ngi koy wax ne aamal mu aamal muraysi'i qad xiidat juwayriyatan أي عام خمس لدى ذي الجود والكرم كان اسمها برة أيضا فحولها خير البرية طرا كاشف الظلم في سهم الثابت في سهم ثابت حلت والنبي شرى ها منه قيل أبوها الخلف لم يرم تحت, تحت ابن صفوان كانت qabla shafiina tuwufiyat aama naw wal umru fi yakami marwaanu salla alayha salli rabbi ala haadi albariyati turran ciimati alciyami zaayan rawat min xadiisin xaada citratuha mannan laqad saaharu caafi junaatihimi mu ne ci xare bi ñuy tuddee Muraysia nee na ci la yonent bi denc ci jigéen ju ñuy wax Juwayriya mu tolloog atum juróomeel ma ca gàddaay ga nee na Barra la tuddoon ñu soppi turam tuddee ko Juwayriya mu mel ni ndaxañ na fi histoire yépp waaye gis nanu ne keroog ba mu génnee àdduna moom Juwayriya Marwaan moo ko jullee mu mel ni doon na sëy ak yonent bi sallallahu alayhi wa waaye nag sëy kese bàyyiwu ko fa woon ndeke doon na jàng ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax wax nañ ne nettali na lu tolloog juróom-ñaari xadit mel ni soxna yépp kenn ku ci nekk am na loo jële ci sang bi mu mel ni ci xare boobu gis nu ci itam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nettali na ci xew-xew bu rëy te moo di na fekk bu rëy boobu nga xam ne génnoon na àdduna te booba yonent bi sallallahu alayhi yàlla xamal na ko ko ca xayb ca ba ngelaw la uppee upp bu rëy ba ñoom ñépp ñu jaaxle ci ne lu waral ngelaw li upp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen uppuk ngelaw li du musiba buy wàcc ci jullit ñi mukk uppuk ngelaw li itam du musiba bu wàcc Medina ndax yàlla aar na Medina ci ay malaaka yu koy garde dafa fekk ne kay dafa am naafiq bu rëy boo xamante ni faatu na mu di rafaatu bnu zeyd bnu taabut kenn la woon ci kilifa yi yahuutu bani Qaynuqaa moo tax Ubaadatu bnu Saamit ñëwoon ci Abdulaay ibnu Ubay ne ko yaa Aba Xabaab mu ne ko yow Aba Xabaab sa xarit ba de faatu na mu ne ko kan la mu ne ko kan mooy ki nga xamante ni deewam bénéfice lislaam la ak alkandeem teraangay lislaam la kooku kan la xanaa rafaatu bnu thabit foofu nag la ablaay ibnu ubay ne yaa woy laa kon de woo sama toskare euh, loolu itam day wone rek ne yonent bi sallallahu alayhi wa yàlla dana koy faral di ubbil rido kumpa yi mu ciy gis loo xam ne moom rekk a koy xam ndax loolu beneen xew-xew seede na ko ndax géléemam googu ñuy wax xaswa dafa réeroon ci seen tukki boobu bi mu réeree jullit yi di ko gëstu di ko wër di ko seet waaye am na benn yahud bu ñuy wax Zayd ibnu loo Lusayt moom itam mu ngi bokk ci yahuutu Qaynuqaa ab naafiq la woon mu wax nag wax bu yéeme ni su fekkente ni seen yonent bi waaw yonent bi bu fekkee yonent gi muy woote dëgg la afala yuxbiruhu llahu bi makaani naqatihi xanaa su fekkee ak yonentam dëgg la xanaa yàlla du ko wax bokk fan la géléemam gi nekk nee na bi mu waxee wax bi am na ci jullit ñi ñu gàddu jaasi wuti ko nar ko rey mu daw ñëw kat làqatu ci yonent bi te kat yonent bi la doon jëw ba jullit ñi nar ko rey mu daw ne dafay làqatu si ci yonent bi sallallahu alayhi wa waaye yonent bi sallallahu alayhi ko yàlla xamal ci wàllu xayb kumpa gi ñépp réere naafiq ba daw na ñëw te kenn waxagul dara yonent bi yonent bi wax ci sa ne ko inna rajulan min almunaafiqin shammata an dallat naaqatu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa qaal alaa yuxbiruhu allahu bi makaaniha yonent bi ne am na benn waay day ci naafeq yi moom de mu may yëjj di ma ndokk di wax naan ah moom di gëléemam réer na moom yonent bi xanaa bu dee ab yonent la kay yàlla dana ko wax fan la gëléem nga ne waaye yonent bi sallallahu ne géej naa ci yàlla mi ma bind ne yàlla dana ma wax fan la sama gëléem gi nekk xanaa looloo gën a tee rëy mu ne wante nag wala yaalamul xayba ba allah ak kumpa kenn xamu ko yàlla rekk ko xam kon sukkandiku naa ci moom pour mu wax ma sama gëléem googu ñuy wax xaswa fan la nekk waxtaan wi weesu déggoon ngeen ni gëléem googu ci la yonent bi gàddaaye Seydina Abubakar moo ko joxoon mu jëndu ko ci moom waaye yonent bi sallallahu alayhi wax na ne inna allaha qad axbarani bi makaaniha wa innaha fi hada shaab yonent bi na ah, yàlla de wax na ma fan la gëléem gi nekk gëléem gi mu ngi ci xur wi su ngeen duggee ci xur wi mu tegtal leen ab barab ne bu ngeen fa demee da ngeen ko fa fekk ah ba ñu ñëwee ca xurwa barab ba leen yonent bi waxoon fa leen fekk gëléem googu ñuy wax xaswa ñu indil ko yonent bi sallallahu alayhi wa mu mel ni kon yahud yooyu ni ñu nekkee woon lakkal ci Seydina Muusa daan ko laaj di ko sonal gis ngeen ca nag wa ba ñu ko reyee wala boog ba mu leen waxee ne dem leen ngeen rendi nag laaj nañ ko nag wa nu muy mel bu leen waxee melokaan ñu ne ko dégguñu ko lënt na ci ñun gën ñu ko leeralal ba mu mujj leen wax melokaan wu yéeme laata ñu koy am sonn nanu ci yahud yooyu seen jikko jooju moo leen bàyyiwul ñoo àndak ak tey yonent bi nekk ay naafeex gëm ko ci biti te nëbb ak kéeféer ci biir mu mel ni beneen xew-xew bu rëy am na ci seen yoonu tukki bi gannaaw ba ñu jógee ci xare boobu ñu doon xare xareek yahutu banil mustaliq ndax jigéen ju sell ju baax jigéen ju yiw jigéen ju yàlla fonk di na Aïcha am na tuuma bu rëy bu ko topp te la yëkkati coow la ba mbir mi mujj nekk lu garaaw moo di yahud ya te itam moo di naafeq ya yonent bi sallallahu alayhi wa wax nañu ne ci yoon woowu am na fu ñu defoon escale ba ñu defee escale yonent bi ne saxaaba yi jóg leen ñu dem ba ñu jógee di dem ndeke sayyidatuna Aïcha ca xam wadd na mu wëlbatiku di seet caqam nekkee bi mu wëlbatikoo di seet xam ci la yonent bi diggal saxaaba yi ne nanu dem abu ba mi nga xamante ni moo yoroon géléemam doon ko wammatal sayyidatuna Aïcha te seen géléem yi daf daan am hawdaj hawdaj espèce su mbaar lay nekk moo xamante ni dafay fat soxna yi dañ daan nekk ci biir kenn du leen gis ci teg gu mel noonu la sayyidatuna Aïcha nekkoon waaye ndeke abu abam woy ba moom xamul woon ne sayyidatuna Aïcha wàcc na di topp ca xam ah bi yonent bi joxe ndigal comme mbooloo mi dafa bari yàlla dogal moom mu jóg rekk départ ak gëléem gi dem wax nanu ne itam e, woyofuk teg ga wonu ko ne ko na Aïcha nekku ndax boobu jigéen ñi daawuñu lekk lu bari maanaam jamono boobu dafa fekkoon sayyidatuna Aïcha nekkul nekkuloon nit ku am yaram lekkam bariwul woon ba tax mu yor yaram woo xamante ni gëléem nga dana diis bu dee jóg gëléem gi jóg jóg bu woyof waaye jóg bu woyof googu nag taxul aba mooy xiba ñaaw njort ci ne Aïcha sayyidatuna Aïcha wàcc na eh, boroom xam-xamu siire yi werante nañu sax ci ne li waral yàlla faratal tiim ci xeet wi nee nan saydatuna Aïcha la ci barab boobule wax nañu ne e, saydatuna Aïcha topp boobu mu doon topp ca xam te barab boobu nekk barab bu sori ndox nee neen te waxtu julli dab leen fa ñu war a julli te amuñu ndox ci la yàlla farataal tiim wax ne ne sax tardeel boobu mu tardeel nit ñi merloo woon na baayam di abu bakrin siddiq radiallahu anhu ba doon na ko ca yedd wante itam barke la ci moom soxna si yàlla wàccee yërmande bu tol ni ci kaw xeet wi loolu ba tey rekk daf di ndaw si moo am barke ba tey ku amul ndox moo jàppe walla boog soo jëfandikoo ndox mi mën naa yokk sa feebar wala mu jur ci yow feebar lislaam yoonal na ci yow nga tiim te sabab bi mu ngi jóge ci na aïcha radiallahu anha moo tax ñu ne bi mu demee di topp ca xam boobu yàlla dogal na ah gàdd ga dem nanu ba ñu demee nag ba mu ñëwee fekku fa kenn mu daldi toog nag ca taatu garab ga di nelaw moom na Aïcha mooy nettali histoire bi